عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدره المدار العظيم رضي الله عن صاحب الختمية والكتمية مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن وارث سره وخليفته مولانا الشيخ الإسلام صاحب الفيضة alxaaji Ibrahima Niass gannaaw bu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu euh, ñaanal xalifa bi euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass yàlla may ko wér may ko kattan ak ko fan dellusi ci jàmm ak salaam mu fekk ñu ci jàmm mu ngi nuyu mbooleem euh, ummatu islamiya rawatina taalibi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu di waxtaan ak yéen fii tey ci kër xalifa bi ci mbir bi aju ci fuglu gàmmu Medina Baye muy guddi fukk ak ñaar ci rabiu lawal at junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn ci hijriya di ñu koy fooglu ci neuf ak dix diggante boobu euh, euh, novembre deux mille dix li waraloon daje bi euh, COMAF daje tey mooy doon waxtaan def évaluation ci ci mbiru gàmm gi nga xam ne moom moo weesu woon doonte sax waroon naa am lu jiitu loolu mais ay mbokk yu baax yu am xalaat suñu biir bañ gis ne tam lu mu xat-xat war nañ ko mën a def ren bu gàmmuwaat gi passé nag ñu kale ko foofu di ko def ci jamono jooju waxtaanee nañ mbooleem commission yi nga xam ne moom la COMAF am ci assainissement ci santé ci accueil aubergement ci culture bi nga xam ne moo yore xam-xam eh, ci mbooleem commission yi des eh, dañuy tënk rek di gàttal pour naka la xoolee faay yi am ak problème yi nga xam ne doon na am ci biir tànt bi problème yi nga xam ne doon na am ci ci ci ci dugg bi ak génn bi problème bi nga xam ne dana faral di am ci frontières yi ñu sax def ci ay recommandations yoo xam ne dañuy fexe dabaatal lu ñu mën ren ngir bañ yooyu dal ñu ak ci mboolem secteur yoo xam ne ni même communication lépp lu ci daan am ci ay faay ndax doomu aadama matul waxtaanee nañ ko ay borom xam-xam ay intellectuel ay étudiant ay yu arabe ak yu français ay taalibe yu sell ay borom xalaat yoo xam ne ni bokk njiiti commission yi waxtaan nañ ci ñu ci teew pour ñuy ut ay solution pour saafara loolu. loolu nag dañu bañ a dugg ci détails yi waaye incha allah li fas yéene ren mooy taxaw ci bu baax a baax a baax li nga xam ne nag moom la ñuy wax taalibe yi ak soppe yi mooy ñu ngi leen di ñaaxaat bu baax ñu gën a takkaayu bu baax xam li nga xam ne mooy rôle bi ci pays bi di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm fekk jàmm dellu ci jàmm képp koo xam ne nii ñëw nga it sa aajo yàlla na ko yàlla fajal loolu lañu amoon ci ay kàddu yoo xam ne nii ñu ngi koy sànni jëmee ko ci taalibe yi ci mbégte moo xam ne ñu ngi ko am di fuglu gàmm googu nga xam ne a Cheikh Ibrahim mi ngi nekkoon ci tukki ne qalbi dawaaman bi Medina arqubu chahr al habibi is arahu yaqrubu maa ngi ci tukki Conakry dem fu ne waaye sama xol lépp daayiman mi ngi aju ci Medina ngir lan ngir ne maa ngi fuglu weeru soppe bi teru na kon yéen taalibe weeru yoon saa sama jege na boog la bàyyi wax kon mu ngi séntu guddi googu nga xam ne ci la ñuy wax ne xëni Ibrahima laaxa hilaalu soreetut ñu ñëpp ñu yàlla dolli ñu leer nañ soppi soppeeku yàlla soppi ñu ñu gën a ragal yàlla gën a gëm yàlla loolu la sëriñ bi bëgg xam ne pays bi tamit ci njub ak jàng jàngale ak jaamu yàlla ragal yàlla liggéey dunde sa ñaq moom la ko yàlla bindee ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di tàllal ñëpp loxo ci képp ko xam ne am nga xalaat fas yéene jël ay décision yu mat di ñaan yi nga xam ne ñu autorité yi di xamal taalibe tamit ne ci semaine bi war nañoo def CDD bi incha allah monsieur le préfet semaine bi ci topp dinañ def CRD bi incha ñu dégmal li nga xam ne mooy réunion nationale bi euh, altine bii di ñëw incha allahu taala le sept ci lañu am réunion ak monsieur le ca euh, préfecture comment dañ déplacé wu ak commission yi président commission yi dem waxtaan ak ñoom su ko defee altine bi ci toppaat le quatorze jërëjëf Cheikh Ibrahim ci lañu war a def euh, CDD bi CRD bi fii ci Medina baay ci Kër Gan incha allahu taala comme ni ñu ko defee woon daaw foofu ci ndigalu sëriñ bi su loolu weesoo nag incha allah ñu Euh, réunion nationale bi ñu def ministère de l'intérieur ah, ñuy attirer attention rek ñu gën a bàyyi pays bi xel gën a bàyyi mbedd mi dina bàyyi gën a bàyyi taw bi ak li nga xam ne moo am ci dëkk bi ci assainissement yëpp ñu taxaw ci bu baax a baax a baax ndax gan yaa ngi ñëw gan Sénégal lañ gan yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam lañ loolu lañ am lu wax état bi waaye tamit di interpeller taalibe yi ak ñi dëkk Medina Baye ak dëkkandoor yi ñëpp ñu set setal liggéey parce que nazaafatu minal imaan yi liggéey na ci fekk lo ndimbal loxo ndimbalu borom ñu o oo ñëpp ci commission bi jiite euh, assainissement ci comment ak képp koo xam ne mën nga rek participer bul xaar na nga taxaw ci Medina Baye veillé ci pour mu gën a set pour mu gën a naat Medina Baye nekk jekk dafa set ndax Medina leeral la Medina xam-xam la waaye zahir bi nañ fexe ba bu mu am benn tilim tilim dañ fóot xol yi fugul gàmmu gi bu baax loolu laa mën la may wax ci ay kàddu di gërëm mbooleem président commission yi nga xam ne ñoo ma jàppale ci liggéey bi ak adjoint yi di gërëm mbooleem ñiy participer di teew di joxe seen xalaat di yaatal euh, xalaat yooyu bu baax a baax a baax maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi dellu ziar xalifa bi Cheikh Matiane Ibrahima Dicko ñaanal yàlla ñaanal ay rakkam ñaanal mboolem waa pays bi yëpp imaam bi ak mboolem ñi ci addu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di nuyu itam président Ansaruddin Cheikh Mouhamed na Ibrahima Niass di ko ñaanal yàlla di ko remercier ci taxawaay bi nga xam ne moom la am ci euh, en tant que COMAF ak président COMAF moo ko am stade bi di ñu jàppale ci liggéey bi di ko ñaanal di nuyu porte parole bi Cheikh Mahi di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi aju ci pays bi ci ay daayira ak société ak association yu borom xelaat yëpp ziyaara xalifa bi di ziyaara ay rakkam yu tedd yëpp di leen ñaanal yàlla ah, di ziyaara Cheikh Mouhamadou Lamine gannaaw bu mu ziyaara Cheikh Mahi Cheikh Mouhamadou xam ne mooy mooy gàmm-gàmm ji di ko ñaanal tawfiq waaye di nuyu doomi baay yëpp di leen ñaanal alhamdulilah alayka salatullahi thumma salamu fa